question boobu dama ci bëgg a tontu tontu bu leer moo tax dafa am kenn ku ma doon waxal ma ne ko man dama nekk entre le marteau et l'enclume parce que bu fekkonte ne suuf rek la ñuy xëccoo muy suufu ndengleer kon bàyyee naa leen ko bu yàgg jaraluma ko coow li rek bi mu amee ak léegi ne woon nañ ma fa di ma proposer suuf ñëwal Casamance ñu jox la 1000 hectares may xarit ñoo ma ko wax ci suba rek laa wax maire fële ci Waalo plan yi mu ngi nii ak suma suma doom mille hectares yu taxaloog tool yu mag yu nekk foofu kon suuf sédiment bu ko bëggee yomb dana ko yomb waaye li ma wax sànq ma ne xëccoo wunu suuf dëgg la ñuy xëccoo dañuy wax leneen itam ci problème bi légalité ak légitimité kooku bu ngeen ma bàllee ci kanam dinaa ci ñëwaat parce que je crois que sur ce site ñun ñoo am légitimité avons la légitimité avons am légalité mais terewul population ñu am yërmande ci population yi te am yéene liggéey ak ñoom ak jàppalante pour suñu njariñ ñun ñëpp ak Sénégal ndax damay delloo ndengaleer suuf soo suñu xëccoo bu ma ko def ma delloo ko ñi ma ko joxoon ñi ma jox

bëgguñu jàmm am parce que lënkale seen les ak sama tour euh, man ni Sénégal un soit peu kon nañu buñ dootul mukk ba local élection locale lii duñ parce que boo nee diw ne Babacar Ngom ñi jeex na ñooñu ñu fiy tudd kan moo leen xamoon man xamuma leen woon gis nga 75 hectares yi ñuy wax dama bëggoon préfet ak autorité yi ñu leen leen comme nee ngeen 40 familles ñoo fi nekkoon mais dëgg rek mooy dëgg quoi 40 familles moo fi nekkoon dañ leen di jël kenn par kenn parce que ñoom gëj nañ ci tool bi fi mu ne gendarmerie laa fa teg kenn mayuma ko kenn saraxuma ko barki démb rek chegu 16 millions laa yónnee chaque 15 jours presque 8 à 9 millions l'a fay chaque 15 jours gendarmerie nous fay ñoo fa C'est ce démb mu titre foncier bi li 2015 nous avons am bail nous ngay am bail état service administration dañuy dem cadastre urbanisme domaine anat xaw ñan ak ñan ak euh, euh, commission octroi des trucs comme ça. Nous def immatriculation au nom de l'État du Sénégal ça veut dire que terrain bii ñuy wax tey dafa tollu jamono État du Sénégal moi comme moom daf ko immatriculer à son nom moom ko bi mu ko Donc, ba pare la louer sédiment. a louer Sedima mu ses ko il Sedima di lui luyaas 30 quelques millions quelque chose comme ça par année ñu dugg ci deuxième année bi ci laa ne terrain agricole deug deug nak da nek ci bàyyi di fay ay par par année nañ demandé session définitive nañ ñu ko jaay ñu dox ko dox ba 2019 bàyyi bi euh, titre foncier bi genn ñu jaay ñuko ñu fay ñu dox ñu titre foncier ma nga ci kër ga li moy wax ji